yoo xam ne ci la ñu yeewoo ñun ñëpp ñun sénégalais yi 438 communes Benno Bokk Yaakaar ak i alliéem bu majorité présidentielle ñoom ñoo ko gagné. ñu am it ay département boo jëlee département yi 43 la ñu 46 la ñu waaye 43 yi parce que am na ci département du Dakar ville la am moo tax muy 43 yi.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 ndax Casamance ci Sénégal la bokk bu ko defee développement Casamance gën a